Euh, na nga def yow euh, noo tudd euh, foo dëkk waxal ci kaw Passy defal nii waxal ci kaw Passy li ñu lay tuumaal ndax yaa ko def li ngay def lu mu doon affaire góor jigéen da nga koy dund kañ nga ko commencé woon dund ba ak si fan nga ko njëkkee commencé. Passy. Passy. waaw te loolu ba ma nekkee xale su fekkee feebar la lañ ko a def. waaw lañ la ko def nga continué di ko def. na ko waaw mais continué ngi di ko def di ko def. waaw jii ki ñu la jàppee lan ngeen waxante woon ak lan ngeen naroon a def. dañ waxantoon Afrique pour jigéen. ba ngeen juboo. waaw après ngeen ngeen ànd. waaw fan laa leen jàppee da ngeen demoon pour doon ko defi. waaw nga jàpp léegi looy sakk yow ngir li nga doon def. ngeen baal ma xaq ma ko def dootuma ko def ba. ah dootuma def yaakaar naa kenn tuumaalu la de. waaw am na waaw. dañ laa tuumaal wala tuumaaluñ la. yaa ko def sa coobare bopp. ah te dootoo ko def. tey jii tey jii la kañ. Euh, tey la 18. ah. waaw 18 euh, premier mois. tey la talaata. tey la talaata ah. tey la jàpp. la talaata ah? le 18. janvier janvier deux mille vingt deux. fii ci Touba. fii ci Touba leer na. baax na buñ la bàyyee léegi nag ku Xudaamul Xadim da lay génnee Touba leer na. sa mag bi nga wax nga ko lu leer. nga jël say bagage nga dem.